وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم وإني أعيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات سياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون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 ndax jëmm la joo xam ne nii soo ko doon seet ci jëmm yi nga xam ne ñoom ñoom la bokk sëñ Tuubaa dana jafe lool xuxuma la nag doomu aadama yi ci des Cheikhu Saalihu Mbakke Ibnul Xadim noonu la ko daan binde ci loxol boppam muy jëmm joo xam ne jamono moo dem ba soxla ko ci jamono yiñ tollu mu gëna fédaliku ci ku melni mom ñukoy duggal dugal ci bop ndaw yi ak mag ñi nak ndax waxtu wu nek bu jamono yàqoo katu jamono lañuy soxla su jeexiti yàqu amé dañuy soxla wo jeexiti ab kat ndax lé mu mëna fay sawar wo di tak ci jikko yoy nga xamné suñ ko bayé seen borom dinañu dugg ci luñ xamul Cheikh Saliou Mbacke suñu borom boole ko ci ñi nga xam ne ay sauvetage lañ dañuy xettalee buñ fi nekkee di xettalee buñ fi nekkut ndax seen jeexiti jëf moo woote loolu. ci kër sëñ Modou Gueye yóbbu ma boobu daal bu ñu jógee loolu nag yomb naa leeral jafe naa leeral yomb gi mooy loo ci fekke lu ne dañ ko mën a nettali na ko fekkee woon ndax do do do loy deg da daa doon loo dund serign bi olu len njabotam googu ci bir lolou gor gi netali de ne len yen ñi nga xam ñu ngi len di tuddu di ma tudd muy ñi naan doom ci zaayir mu ne moom de serign bu mag bi man wacc na ak yen da ngeen wacc ak ñi len top ngir sama jëm wax ju yaatu na lo reyna mu ne ko kon lutax sëriñ mo mu ne sëriñ bu mag bi ne mo nusa ak njabootu Cheikhul Khadim tax mu ne len wacc nak yeen mu ne ndax tek na len ci beutu dex li di xam-xam li di wërseuk li di mbolo ku yalla bindu di len ko ëppale sëriñ Tuubaa ne defal na lolu njabootam ay doom kon mu ne wacc nak yeen kep ni ngeen wacc ak ngi len top ngir sama jëmm sëñ sa mu ne lolu wax ji neex na ko neex go xamne ndax dama jëge ci bu baax ak lam ci fagu ba sëñ mbay longoor moomu la mu doon ut ci moom daanaka da koo da koo duble jox ko ko kon sëñ mbay ne sëriñ saaliw loolu leen wajur seen wajuru tedd woowu defal ma ñëwee sa kër gi di sàkku war nga maa jox lépp ma jox sëñ bi noonu lañu ñu wëlërantee dégg naa at mu ne moo may nettali bu ñëwee mu jox ko ay toni ceeb toni dugub toni suukar mu yóbbu këram moom ku bëgg sëriñ Tuubaa la maanaam waajur gi nga xam ni sëñ bi doon na ko ci moom maanaam doon na ne taalibe lu raw loolu nga xam ne li ñu naan waa kër sëñ Tuubaa ñi dañoo jaay seen njureel jënd seen taalibe loolu moom feeñ na ci sëñ Saliou bu wér a wér a wér ndax ci bëgg sëriñ Tuubaa ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak alxuraan ak xasida yi ku ci neexa dendal ak liggey ak yar yar mom wax na ni jëmi tërbiya tërbiya neena mom moom wóor na ko ni xam na ko xam na manam maanaam maanaam tërbiya bu wér wér lo xamni lum ci lum ci def rek ca loolu la bok lum ci génn bok ci bind ci loxom as-Salih ibn al-khadim lolu fekk na ci ben lettre bo xamne

ndax jenn ju day sëñ bi fekkee na fi dong fekkin boo xam ni ñun daana ko ñeewantu lool ba jégib dayoo ndax fu mel ni lagan am nawet lu mel ni nawet dong yi xëy di liggéey di bay ci ñax mu bëree bëree bëri ba tisbaar ngay sago jeexal sa sas ba bët ko buub ko te añ duur sa gémmañ nga wéy noonu wuti wuti wuti guddi te reer ba noonu li yàlla xam doy na loolu du jamono yi war na jamono yi loolu mooy sanc bi nagan bu njëkk ba li ci topp mooy mooy njàpp na jàpp na sax jiitu jàpp na waxtu bu ruuj daan jot ñu sas la woo xam ni sas bu yaatee doon di ko gajj bay ko ba mu set nga radu ko ba mu set wicc nga tal sëb ya su ko dem ca teen ba ni da ngay naani nag diir da def loolu lépp ndox dugg sa gémmiñ te boo demee ca teen ba da ngay da ngay nasal ndox moo xam ne boo ko nanee ku ko miinul sa biir day daw wàllu xam-xam bu jóge ci sëriñ bi surtout xam-xam yi jóge naan intellectuel mm-hmm. wax ci dina jafe ndax loolu dañ leen koo fàggul ñoom mm-hmm. sëñ li ma xisa ma nettali mm-hmm. sëñ Tuubaa dafa leen fàggul xam-xam doomam yu tedd yi fàggul leen wërsëg fàggul leen may mayu baatin maanaam wàllu tër bi yi bari na daara yu bare bari maanaam kilifa yu bare bari seeni waa kër dañ daan am ngontal li ñu wax toolu yàqul bàmba hmm. yàqul bàmba sëñ bi musu ko nag ndax neen bukk ci waa kër man musuñu ko jëfandikoo <laughs> te man mii gis naa ba toolu toolub jiw ba tay ab beneen tool ne ca wet ga mu ni muy yàqul bàmba waaw nee na loolu ci jëfi seytaane la bokk ak nee na li li muriti xewal di tër bi ba nu fi ni du ma du ma julli duma woor maanaam duma dugg dugg saxaar daal yem samay bagaas nee na loolu ci màndarga jëfi seytaan yu jekku ci wàllu yoonu murit ci la bokk loolu mus ko boole ci maanaam tërbiyaam bi muy tërbiya nit ñi tërbiya gi muy tërbiya nit ñi noonu musta jóg ci jàngale musa juk ci liggéeylu ak yar aye bi ci des tegat moy way juram wu jigen dafa bok ci ño xamne ñom itam ay kat lañ won di ay way ci rew mi di ñu ñu xam ñoo di ne bi sëriñ bi feeñagut fekk na ay mamam doon yëngutu ca lu mel non may way wu jigen di soxna mam faati jaxate bi nga xamé na ñëw na ci kër ku tedd ki nim jankonté won akub yar daan xamle jële ko ci way juróom jigéen moom itam di maami sëriñ saalihu soxna su déggoon luxal arabiya la langu arab waaye doo doonoon ko man alquran kon moom ay maamam noonu lañ toftaloo kër soxna maam Fatou Jaxate booy dugg ci ba tolloo kër sëriñ Touba gi radiallahu anhu wa arda danga ko gis mu féete la boo fekkee da ngaa jóge Touba mu féete la càmmoñ solos ñu beral ko këram sëriñ Tuubaa daf ko ne woon li ngay jànkonteel ci jaamu yàlla di ko jàm jànkonte ci bi yar sa kër bopp rekk lay doy moo waral ñu ber ko muy soxna soo xam ne yaakaar naa mag magi barzaq yi moom lañ ci xam ci këram koo xam ne génn na kër sëñ bi muy ab boo xam ne it mboolem ñu ko joxoon ñu tuddoon ay tur tànk moom soxna su tedd soosu jàngal na leen ba ci soxna Mati Jaxate mii nga xam ne tey mooy wajiru a Cheikh Moustapha Saleh yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko. bu nekkee ci tool yi. buñ ko ruujee ba mu set bu dee waxtu loole la ñi nga xamante ne ñoo ngi ci dugub nawet bi te ñu nañ sax nañu faru gerte nañ ko faru ci woon waaye bu ñu yàlla dogal na bu ñu ba nga xamante ne wàcc nañ ñu ci wàcc nañ bay ñibbi wala ñoo yegg ci kër yi ñu ci bari dañ taw ñu ci bari dañu taw muy ay kiimaan yoo xam ne ñu jaaxal ñu bare bari ñu def ko fa ay ñaari at ñetti at waa réew mën fas ko yéene manifesté wu. naan sëñ Saalum wuñ na ma ngay falu léegi ñu bu yeewoon ñu daal falu sëñ bi xam naa ne man mii loolu di dégg-dégg nit ñi rek daal di bàyyi loolu. bu tawat bu toogee bu falootee bu defalatee toolam ba mu bàyyi ko mu bàyyi ko yàlla tawal ko mu taw. sëñ Saalum moom sëñ Cheikh Saalum won naa ndox mi ndox mi ba noon noppi na su ko dugg àll bi jeexaatul wala nga añee ko wala nga raasi dimb lakk ko añee loolu amoon jàpp ne jëmmi njurul hmm. diggante njurul ak daara ja war naa mat ñaari kilomètre ak genn wàll wala ñetti kilomètre après peu hmm. près teen ba mat na téeméeri mètre yu tegal mujj gi sax lañ am mbaam yu koy jukki waaye jamono yi yéen fay ne ñun ñoo jukki suñu loxo taan bi eh, goj bi ñu eh, eh, ponk nag moo ko daan yënu waaye gone attanu ko fa daan duyee paan yenn ko ba indi ko ci daara ji kuy naan naan bañ ci des toogu toogu ci lii diiru noor bi am nit ndox mi ko di wax sëñ Saar si jamono yooyu moo fa xam nañ naan toog ba ba boo di timis ba ko jun ñu génn ñaari pantox ci at bi di woote ñëw leen nan <laughs> ñëw leen nan ñun ñu mel ni ay xar ñëw songu pandi kenn tanga de da ñëw dëtam ku naan ba man di sigi sa marum sa gënal diirum noor bi noonu daan def añ yet dee ko dégg bi añ bi laax la daan doon boo xam ni laaxu sumbal lay doon boo xam ni dara du ko jéggi lu dul léeg-léeg ci buy wala ci fayul bisab dong moo ci daan ne leneen du ci am léeg léegi it eh, ci bay du am xam ne ku mel ni man da ngay wut xob yi bisaab def ci cin baaxal ko ba xob yi baax nga jël eh, sangal sa sotti nga jël laax ba sotti ci la yëgal ko mu doon loolu ñuy wax ab rànq ku yéeme woon la ku yàlla may boo demee kër sëriñ Saaliw tey yow mi miin kees gi aafe boo duggee ci kër gi néegi juróom benn koñ yooyu ba nga jàkkaarloog sëñ Modou Badar ba néeg boobu moo ko takk fa sëriñ Moustapha Saaliw daan dal te mu doon béréb bi xam ne suñ ablaatu ko moomoon jox ko suñ saaliw àddiya néeg yooyu moo ko takk li gën a yéeme fa sëriñ tubaa nekkoon liggéey fa mat la bu soysa muy dem ci géej ga mooy néeg yooyu nga xam ne e, néegu juróom benn mètre par juróom benn ak saalu fukki mètre ba ak ñaar bi juróom benn fa sëriñ bi nekkoon li muy tëgg ma la fausé te gaynde ga fekk ko fa Cheikh Abdou Dieng Balla Fall yi moo ko liggéey may wax ni 1978 la kooku du tey. dongi tërbi yi. daan leen fi daan jëlee. di yóbbu ci ñi nga xam ne magi sëñ Tuubaa yi lañu. Hmm. ñu wëññi ko dafa dem di leen liggéeyal ngir nun li ñu yor maanaam sakkan. Hmm. xam naa ci suñ Seex Jóob Fàttaagu Jóob. Hmm. mosuma mbooleeg donga yi ñu di ko bayal pencam. te dëkk bu mag la te ñoo mënoon nañ koo bay. te dafa romb rek gis mu def nii mu mu mu yebal na fa. boole ma suñ suñu Cheikh Diop Attack ñu béy ko bukk hmm. waaw te loolu lépp ne lim ci bëgg mooy nun li li li nu yor lim bëgg ci ñun yéene ji dafa ëpp bëgg maanaam njariñ li ba fu nu mën a fu mën a wute lijjante njariñ ci nun rek ba jariñu dana dana ko def hmm. suñu am satu jaxate hmm. daanañu jógee njurul dem ay toolam booba sax man mënuma liggéey ci dajale laa toll. waaw daanañ fa jële duñu fa yóbbu. ngir bëggul sakkan ba tey. waaw daanoonu jële foofu itam yóbbu nañu kër soxna Fat Dia tawub sëñ Tuubaa ngir bëgg njariñ itam ak dolli ko ci nun ndax yéen a ju am ci euh, doomi doomi doomi euh, ñi nga xam ne dañoo yëkkati seen doom jox ko. te mu bëgg li war a nekk ci ñoom lépp nekk ci maanaam àgg na ci di jaar foofu di leen liggéey loo daana jël nun ñi sama classe gi booba Ali Thiaw mooy mooy moo mooy jéete njàng mi daana njëbb kër sañ sony bu andi ñu këram saa bu nu jullee gee dem kër sañ sony bu di ko jàngal ba mu ay min bi guddi nu wañu ko ñibbi si kër gi waxal na boppam ci gémmiñam ne képp ku ma yar ba noppi ci moom su ko suñ borom nattoo woon kuy lekk laaxu daqaar di tëdd fi ci ab pajaasit bu fa demee dana fa mën a nekk ndax rafetug yaram kon kooku ab yarkat la ndax kër gu naqari ba dee ah dara doyu fa nga dem fa mën faa nekk ku yaru rekk ko man loolu la soxna si daan joxe muy ab résultat am ci wàllu yar kooku mooy waajuram wu jigéen Cheikh Saalihu Mbàkke nag gane àdduna ci njaareem ci 1915 it ci li gëna wër te gëna tekon lëng ci wax yi ci digënté kon wayjur wo xamné xam soxna wahamne mom jaxaté bok ci fami bu jang ak jangalé ka yar wayé ak wenen wayjur wo xamné mom xamnañ ko ci penko ci sowu te moy cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wa arda bim mu sosoo ci digënté ñaar ñoñot di ko sun borom teel a baaxee moom Cheikh Saalihu te borom xam-xam yi dañ ne xel leeruk suñ boroom la goo xam ne suñ borom a koy sànni ki dënd ko ko soob mu am nag ak yokk moom xel kemt laayal don ma liñ may boroom xel mi ci daka ci ak ñaw xel mi dana ko yokkoo. ba ñu nappi ba bu jëlee ko ci ndox ba ba pare ay jaag lañ ngar lañ koy def ngar. ngar li foo toll di ko ngar. la doon lépp lañ daan même ñam ko daan waaye loolu lépp teewul sëñ bi ànd ko ñun képp ku ñëw mu wuuf la di la yërëm la lépp lu mën ci dimbali la mu dimbali la ko lu mu la mën ci wax la wax jox xam day dalal sam xel tax nga toog mu defal la ko te def ko noonu dong am na ñu ñu ñu jiitoon ñoo xam noonu leen yore woon ba ñooñu dem ñeneen ñëw mu yore woon noonu ba ñu ñu ak si mu yore noonu ba ba ñii mujj waaye loolu lépp nag mujj daara yi fàttali fàttali na loolu tax na nit ñi fàttali loolu mm-hmm. ndax dem na ba fu mel ni xel koom gi ak yeneen daar yi mujj gi kenn ku fay lekk ab laax amul ñëpp ceeb yi mel na marmel moom la ñuy añee dégg reer ak ndawal wala wala cere joo xam ne ak ndawal dañuy am wala ñeex mel na marmel te ñun day jam suñuy jamono cere ji am ndox lañu daan sotti boo demee ba am ñeex ñeex mu rakkal la moo xam ne dara du ko so du rax dàkkal je te lépp booba nit ñi dana ñee loolu ndax boobu nit ñu dendal sax ba waa dëkk yi amuñu loolu lañ amoon ñu far hmm. nga xam ne loolu ñu amoon ko njàmbaar suñ moo taxoon am ko waaye du du kattanam da hmm. boobu dëkk bi demagul nii am na jamono bi muy soog a toog xalifa dañoo bëgg a fexe ba tuubaa mbalit mi ñu togg ko toppatoo ko ba du la ci dëkk bi ndax mbalit mi bëri ci dëkk bi am dëkk bu ñu naan Italie dëkk bu fa nekk buñ naan Venise hmm. am benn ay industriel tubaab yoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey ñu doon samay partenaire ma jaxasoog ñoom ñu jàppoon dañuy siyaare si sëriñ bi pour seet lool nu ñu koy liggéeyee Touba man nit ma sawar ci lool ndax luy defar Touba murit bu ne sawar na ci tubaab bi wax ma ko ma neen rafetlu naa ko wax ko sëriñ bi mu ne ma saa yu ñu bëggee ñëw rek maa ngi leen di xaar tubaab jàpp bés ma wax ko ko ñu ñëw fekk ko tubaa ñu ngi ko fekk njurul tubaab nag bi ñuy ñëw wax naa leen sart yi nee naa ki ñu jëm de man suma yaakaar àdduna ak àllaaxira nii lañuy doxe doxee bëgg leen def ni ñuy def taalibe murid ni ñu nekkee te ay te ñoom ay duñu nit duñu jullit leneen lañu waaye loolu dina xaw a diis ñoom waaye man dama ne noonu lañuy doxe pour ma wax rek sëñ bi di ko yàlla mayoon ci xam-xam ak sago dafa yéeme tubaab bi ne ma waaw boobu ñoom jaay seen bagage rek la bëgg ñu ne ma waaye waaye naru ñoo jëfe noonu ñu joggé Dakar dem Touba fekk ku baax ci njurul bi ñu yëgsee rek ma simi samay dal def tanku ne dox touba bi ne ma du simi dalam mom du simi dalam di dox ci suuf mané ah waaw ki moom ñu tambalé wax bëkk nek ma doon dugal ne ma comme yexsi nañu jaru ko ko mu ñëw ki dalam waaye lool bo man mokkatuma ndax boobu lool gis na ci man ndax señ bee ko ko wax ne ko mën ñëw rek ñëw ma présenter ñu wax bu ñu waxee italien ma wax français sëñ bi ñuy déglu ñu jël ordinateur bi nga xam ne moom la ñu wane seenub liggéey tegal ko ku baax mu loolu jafe na taal machine yi mu taxaw mu toog seetaan ko ba mat ba film bi mat na cinq minutes waa bi toog ma toog sëñ bi seetaan lépp waaye boroom xam-xam ñoom ni ñu amoon xam-xam tubaab ci wàll woowu li leen yéem mooy la ñuy wax li leen ci sëriñ bi laaj laaj ngay xam ndax xam na dara dama lay wax rek lu simple ay ree la lay def bu nit ne maa ngi géej nga ne ko foofu am na ndox yeewuloo tubaab dinaan laaj boo ku ci laaj ngay xam ndax nit am na xam-xam sëriñ bi jëflanteeg ñoom ci wàllu mbalit nuñ koy doxale ci àdduna xamal leen seenum réew foofu ci itali la fa xew ba mu mel ni mu nga dëkk ci dëkk ba ñoom xamuñu loolu yaa ngi dégg bu baax tubaab yi li leen jaaxal kii ni ko yàlla defee mu nekk mag ak col gi ak toogaay bi ak li mu xam ñoom seenu liggéey te ñoom xamuñu ko te ñu bëgg liggéey seeg moom loolu ub na seen bopp tubaab bi foofu la ca kaw la toogoon fa lañu wàcce toog ci suuf yaa ngi dégg bu baax waaru nag sëriñ bi jox ñu kafe ñaanu ñu dem ànd ak yar boo xam ne nii yar du dal ak ku mën a doon rek buy wax yow dalay yedd te ku bëri sutura la itam ci ñi mu yaral boppam maanaam du leen weer lu muy wax dalay woo ba cib néeg mu tëj bunt wax ak yow bu ko keneen dégg yaa ko yaa ko yaa ko loolu am na bis muy wax ak man am lu may wax keroog dafa wax ni dafa maa wax ni ma dafa maa jox torse bi ni ma ni ma ni ma yëral rondal bi ba xam gone maanaam mu ngi fi tudd wala déet ci loolu lépp ci ay secret ak ak ak ak suturaam ak ak ak fonk doomu aadama moo tax mu di ko def Euh, liggéeyloo ku ne ci kër gi dafa ne ku ci nangoo jàng nañ ko jàngal bu bañee nañ ko baax bu ko kenn dóor nee na ku liggéey ku nanguute jàng nangu woo liggéey te defoo luy yàq maanaam di wax di yàq ak yooyu nee na su fekkente ni maanaam defoo ko du tee ngërëma Sëñ Tuubaa la nga jot ci te duma ko neena lim wax rek la lay wax. nabi bi sallam mo wax ben hadith ne li sun borom jekk bind moy xel ne ko demal mu dem mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ñewal mu ñew sun borom ne giñ na ci mag mag ne ci yow mi ci lay faye ci lay xagné ci lay terale ci lay duma ci lay tabalé aljana ci lay tabalé sawara moy xel xel moomu nag kon mooy lépp nit day taxaw taxawaayu moteur ci wata wata lu karkaas ba rafet rafet bu moteur bu baaxulee yoon wa du sori wala sax du tàkk nit it lu comportement ba rëy rëy bu xel ma rafetul du dem loolu moo tax kon sëñ Saalihu Mbàkke suñu borom teel koo tëbb ci xel te sallallahu alayhi wa sallam kat moo ne woon yaa ayyuha naasu aqilu an rabbikum taarifuna ma umirtum bihi wa ma nuhitum anhu nit ñi xellu leen ci seen borom mooy lan seen xel yi na ngeen ko tàggat mu jëm ci yàlla ci ngeen di mën a li leen borom sant ngeen mën koo def lim leen tere kenn bañ leen caa seen hadis boobu daf ko continuer ba ne xanaa xamu leen ne darajay aljanna ya takkuwul ci liggéey waaye ci xel la takku bari na koo xam ne la muy am ca àjjana ca ay daraja nee na xelama ko ko may waaye du jëfam kon loolu ba day tegtale ne lu rëy la ci daara yi sëñ Saalum mu toog bu guddi ma fanaan ci néegam mu toog bu guddi ay boori ni commencé ma demal wax li ma ca teel ma dëkk bi ñuy wax ba ma jaar ci biir dëkk bi ca ginnaaw dooloo ndox ko ba yenn biir ndox mi ba wàññee ko nit bi ñibbi ci digg dëkk bi waa ngi sotteeku man ànd ak ma génn dox lu ma vingt mètres mu jékki-jékki bi

man la li ci man mooy masama ànd ak sëñ bi man dugg saxaar man Bara Jaxate waaye am na yeneen jëmi duggi saxaar moom euh, dégguma ko fenn xawuma ko itam gisuma ko itam kenn ku ni mas naa ànd moom dugg saxaar waaye man moom ànd na ma dugg dox saxaar mm-hmm. waaw dugg saxaar gën mu demee mooy ni ni ko laaj mm-hmm. benn boo xam ne ñoo dem xaban bay mbay bi jeex mm-hmm. ñu jógee xaban booba pick-up bi xonq bi moo fi ne ko ñuy wax Ibou Sab moo koy dawal bi ñu jógee xaban ba ñëw ba ñëw ba ñëw ba ñëw kees bi waxtu tàkkusaan sëñ bi yebal Ibou Sab mu yebal indi dongo yi moom penku man ma des bi ak moom booba maire bu ñuy wax Ousmane Ngom moo fi nekk Ousmane mu fekk jëndal na ci quartier want bu doon def mu jënd fa ñaari camion yu ñuy wax ay elpan mhm. borom keesu gàtt yooyu oto yi quartier yooyu ñaari oto biñ toog ba ci guddi gi sëñ bi ne oto yi kër ginnaaw mi ngi fi sax xanaa mënees na ci jéem a dem Touba xam ne oto yi ñu réformé quartier day tas bi xëyee chauffeur bi ñëw chauffeur bi nag man dama bàyyitoo xel ba xam ne jógu sàmm mi dëkk ak sa val wala la ñu ñu dugg ci oto bi bi demee bay génn dëkk bi kees gi mel ni luy bëgg a teggee ko ñu teg ci gaal yi hmm. bi ñëwee ba bi ñëwee ba canab eh, sëñ bi eh, sëñ ki doon dawal taxawal bi taxawee mën naa lii kat sooy boo ñu wàccee jéem a seet pexe ndax lii ma mën a ak Touba te bàyyi gaal yi ci oto bi xam noonu lañu ñu bàyyi gaal tuuti ma ma jël der bi ñu ànd ba boo ba gaaru cene ba am na genn wóol gu ne ca ginnaawam si deen be detti mer bu set wicc boo fa mel ni ci fajar gi xam ni fu leer nañ ñi la dara ci ñax néew malal fa der ba mu toog di def ay lawraatam mu jox ma xaalis ma jël gaar bi jël ñaari billet ñu toog foofu ba saxaar waxtu wi jege ñu gën a jege si gaar bi ba saxaar liit ñëw euh, taxaw ñu jox bi dugg nii lañ ak see Touba man sama xol sedd na ndax xam naa kii xam-xam bi mu doon indi di ko jaay xam na ni kii mu fekk moo gën a xam loolu mm-hmm. te wanewu ko mm-hmm. ñi génn ñu waxtaan ci loolu tubaab bi ne ma ne man waxuma sax xam-xam bi ma wan mm-hmm. ak sago bi ak dal bi waaye xam naa ne la ma doon def sax tuub naa ko du yem ci loolu cigarette sax indi woon naa ko nag duma la nëbbatu waaye dinaa ko ban ngir bés ñu tey daal di génn paquet cigarette bi nar koo sànni ma ne ko déet yaa nga ci ur ur ci urma Touba munoo fee sànni cigarette mu ne ko dama koy téye ba génn Touba. Mm-hmm. noonu la tàggoog tux tubaab boobu. am na bés mu woo ni ma. luy waxtaan guddi loolu loolu ci la bokk. Hmm. loolu ma lay wax nii ni moom la ma joxoon tontu. ni ma man de damaa bëggoon ñi fi jóge woon ci kër gi. Hmm. te jógewuñu fi woon ndigal. Hmm. maanaam àdduna leen jàppoon ak yëfi ngone ba àdduna tax jutuñ ci woon ci li ma doon maanaam ngërëm li nga xam ne moom laa fiy joxe. tooguñu fi daal ba euh, seen ngërëm fekk leen fa. ni ma tey ji damaa bëgg bu subaa ñu xëy ci dama la ci bëgg yoon yónni daal ni ma danaa danaa def ci oto bi ndox mu doy boole ak Adama Dia mhm. aw ma itam ak yàkkamti ci oto bi nanga dali mbuur campement ku ci ne tudd na fa Thiès gi ba ndakaaw àggoon na ci ne boo ko defee maa ngi fii rek su saa saabu oto bi feesee na nga ñëw andi ñooñu delluwaat. kon xam nga ne mbooloo mu bari jóge woon na fi. ñoo xam ne nii maanaam jotuñu woon ngërëmal. mu ne ma demal bu subaa nga xam ne loolu lañ war a xëy ci nga war a xëy. ma ne ba ma xëyee Yacine Cité ba ma xëy ba ma dikkee damaa toog rek soo ñëwuma ko waxuma ko damaa dikk rek toog ñu toog lu yàgg. ma hmm. Saliou da ngaa ñëw ci li ñu li ma la waxoon bii nga ma ko waaw mu ne teg waaye mu ne loolu damaa bëgg ñu far nañ ko fomb bàyyi ko ndax de ñaan naa sëñ Touba biig ba kenn ku ne fa nga ngër ma sëñ Touba fekk la kon jërutul def kon nañu demaat ci yeneen yitte eh, eh, eh. lii de wóor na yàlla ak jëmmi sëriñ Touba ak waxtu wi aafi moom ma ko wax te ñaari at benn at la ci teg doon xalifa général sañ-sañ boobu bi mu koy am boobu doonagul nga maanaam toogugul ci ci ci ci toogaayu Sëñ maa jóge njàppandal ñëw fa juróom benn koñ boobu ngay njëkk a jot boo weesoo xay gi fi lañ toog booba sëñ Modou Gaye nga fa Baye Thierno Fall xonn rahimahullah ak sëñ Bàcc Silla ak man ñun ñeent ñi ñoo fa nekk sëñ bi daal ne sallaaw tey de ba ma amee ku ma wéttali lu ma jàll ci biir fii laay fanaan ah Baye Thierno Fall daal tàggoo dem sëñ Ba ci la tàggoo dem maag sëñ Modou Gueye kese kon ñoo fa des sëñ Modou moo ma gën a miin sëñ bi moom ndax man booba xel comme xola njàpp ndal laa jógee sëñ Modou daal di mel ne ku fërbët man kon ma des fa koo xam ne bëgg na maa wéetali sëñ bi ci toog ci diju maa ngi takk nag montar boo xam ne ab lumineuse la maanaam dafay am day xuuy bu guddee boo fayee lampe bi da ngay gis mu def ñaari igiw sëñ bi daa tàmbalee wird bu mu wirdee di wird di wird ba yàgg mu ne ma nii nii bu ko defee mooy fu waxtu daal di ne ma nii ne ma nii fu waxtu wi toll fekk na boobat wax dëgg maa ngi diju waaye maa ngi jayox ma wax ko heure boo xam ne wuute na ak heure bi jot sëñ bi dafa daal di dawtal lo bëtam nii ci biddiw ci biddiw yi rek daal di ma xoolaat ko ma xool ko ne ko ah, daa mel ne dama mu ne ma yaakaaroon naa ko continué waat di wert demaat demaat demaat ba yàgg mu netti ma nii waxtu wi ma waxaat ko beneen heure boo xam ne it wuute naag bële mu daal defaat nii ci biddiw yi wa bin nañ ma hum yahtadun daal di ne xoolaat ko ma xoolaat ko bokkut ak booba mu ne ma yaakaaroon naa ko kon loolu mooy almun nujum kooku xamoon la te mënoon ko lool tomb bi ci dikaat am na fu mu doon jógee di ñibbisi aw xiin di sàqi mu wax safar bi ne ko boo doy daw nangami nangam ci vitesse maanaam juróom-benn fukk daal boo fi teggiwul sa tànk taxawoo fi taw bii suñ ginnaaw ba ñuy jot dana fekk ñu egg soo fi gënee gaaw nag yaa ko fay jiitu te soo yeexee nag mu jot noonu la ko noonu kon loolu ba tey li nga ciy tegtale mooy ay jaar-jaaram ci xam-xam doon dem na dayo ni mu ko mënee woon ca biddiw ba ndekete kon na la ko mënee ca niir wa. jóge naa Grand di métti di métti ba atumut moom ma wutu ak ci nga jóge ak sa loxo bii nii da ngay ko mën a ne tey doole na jóge ñëw mu dénk ko sant yus yàlla dogal na ba ma demee ba may dem yóbbaale naa benn mbubb ak bi ma sol ba ma yeggee fekk naa daal fekk naa sëñ si mu toog nii wala maa ngi ko bëri wala ma seet delal ko ma wéeru ci miir ba leen ma yegg ci sëñ mu jékki-jékki xool ma daal ma bay ma di mbal mun ma ndax indi nga yéer man dinaa benn mbubb ak bi sol ma demal nga saraxe mbubb ba ma dem saraxe mbubb ba ba may demee ba yàgg sax moom ma yónni waat keneen ni ko dama war mi dañ bay demee ni nga ko def ma ko wax saraxe mbubb boobu ma ko door ñëw ma demee ba ma ba ko ñëw lépp toog ko waaye maa dem ci bi daa xam sa loxo moo gën a wér sëñ bi waxoon rek sëñ mag bi nabaxtukum maxan xalakatil bada li xable an araridan mu abada loolu sëñ mag bi waxoon waaye nit ñi jàpp na ni eh, ñu ci ba dañuy jàpp jaaru ci coono te fekk li mu am lépp ab coono ku may sëñ Salim it wayu wayu mën a del si moom lépp lu am ci ab noof laay amul dëgg la sëñ Tuubaa mooy waajuram ñàkk lu mu jël ci moom am na sax lu jël ci moom ba ñu bari ñu ngi naan mooy sëñ Tuubaa ci ñi ñi bokk moom wajur ba jàppe ko waaye teewul dafa liggéeyal boppam liggéey boo xam ni ci nit ñi ak dongo yi ak liggéeyal sëñ Touba loo xam ni lépp ci lim am loolu ko waaye sax leem leem leem jël sëñ Touba léegi loolu moom ko teg fële liggéeyal boppam nag li ko may lii mu am na tubaab boo xam ne ku yàlla may xam-xam la ñu ngi ko naan Pascal Chaignon mooy ki ma leen doon wax léegi am na cinq doctorat d'état Sénégal am na ñu bëri ñu ko xam livre bi bokk na ci fukki livre yi mu bind ci àdduna ci wàllu xam-xam jëm ci euh, diggante réew ak réew jëgg ci économie jëm ci droit jëm ci xam-xam luy doxal àdduna ba nga xam ne président Jacques Chirac bu France jëloon na ko def ko conseil diplomatique am suma xarit la woon Pascal Chagnot la tudd boo gisee photo bële 1998 moom ak ay professeur Sorbonne yu bari bari ku ci mel ni Francis Spinner avocat maak ñoom ànd nañu siyaada ji Serigne Saliou Mbacké mooy photo bi tubaab bi cinq doctorat d'état ku ko am ci économie am ko ci droit am ko ci relation internationale dem ba nekk conseil diplomatique Jacques Chirac moo taxoon ma mun a jiite professeur Sorbonne yoo xam ne photo bi ñu waaye matoon nañu juróom ñoo xam dañu sàkk woon ma dem bari ànd ak sama benn xam naan docteur Diallo ñu siyaare si Serigne Saliou Mbacké te boobu sëriñ baa ngi sëriñ baa ngi Touba bi ma ko waxee ma ne ko ah bisimilah sëñ bi de moom bu ma ko ko waxee bu ko nangoo rek ñu ñëw ma wax ko ko mu ne ma nañ ñëw saa yu ñu jàppee rek naa ko teel a yëpp. bi àgg na ci moom. ci doomu aadama bëgg gu mu bëgg doomu aadama ak yar gu euh, mu a yar doomu aadama moom kenn fekk ko ci waaw liggéeyal sëñ Tuubaa it ñi ko ci fekk bëriwul amul benn benn góor wala jigéen goo xam ne bokk naa moom sëñ Tuubaa te liggéeyul ko ci liggéeyul sëñ Tuubaa sëñ Abdou Khadir menn at la fi toog mhm. gane ko njaareem mhm. sëñ bee may nettali mhm. dik woma buñ joge ci ngam nga woma ma wax ngam gi ni dal wan ngeen sant yàlla baax te góorgóorlu daal ne liggey bi day la doon jébbale serigne Abdou Khadir jebel gi ma ko doon jebel nak maa ngi moom ak yalla ñu fa nek buñu baye tool yi ba dajale ko la ko xamne ne ko buñu ñu dajalee fi serigne bi da danoon ko nang nang na ma gànni ci njaareem bu mu déggee nee na maa moom ñu toog may yëkkati addiya ji di ko jox ba mel ni moom dafa soppi moom sëñ bi daxaati ñu ko doy na de doy na doy na saaliw doy na mu ne ko nii ma lay defal noonu laa dana fi say mag ci lii laa sax nee di ko jox ba mu jox ba yàgg moom mu ne ñokket aku tàngaay moom sëriñ Abdou Khadir mhm. daal di jóg dem ca biir euh, mag ñi mu àndal mhm. woo leen ñu ñëw ñu toog mu leen mës ngeen a gis sëñ tubaa leen eh. ko mu ne sëñ Touba mu ngi nii bu leen ci sikk sàkk sëñ Touba dëgg ngi nii mu ne ma nag loolu kon yéen ñi liggéey liggéey bi ba sëñ Abdou Khadir def loolu war ngeen a sant googu maanaam sant yàlla bu baax a baax a baax te gën a góor te xam ne sëñ Touba moom mel noonu sëñ tubaa kenn mënul loolu bu demee ci ni sëñ bi daan doxalee semaine bépp am na ñu ko séddalee woon noo xam ne nee na bu ngeen ko defee goné gi li tudé ay vitamine du ci manki ben ben bi guddi la go xamné ciéré ji day am gerte ak keccax bu doy neex lool ba ca dess beccëk ba laax ba day am tir bu ci suba sa ñu def ciébu keccax añ bu ci suba sa ñu def ciébu ndawal bis bi nga xamné ciébu ndawal la nak buñ buñ ko lekkee ba nopi guddi ga ja ñeexum naxal rek lay am bi mu ko waxee nee na daf caa teg ne loolu bu ñu ko defee noonu gone yi duñ manqué mukk vitamine kooku yarkat dëgg dëgg dëgg moo mën a xam loolu. faj tawat yoo xam ne ji fii ci sama kër ci jaaree fii ma toog nii ku ñuy wax sëñ Moussa moom it nekkoon na ci daaj mu jóge fii dem nag si Ahmadou Diop lañ ko si yaay sëñ a Sèye Mbaye mooy suñu trésorier général ci kees gi ñun kees daayira bi ñëw sax boo ko tawat jooju mu tawat man nee ko xelam dal dal du ko man yóbbu woon sax yóbbu woon sax yóbbu ko demee kooku nit waxuma ko hmm. waxuma ko waxuma ko waxuma ba ma jógee fii si yàlla ji wax seen bi mooy sëñ Saliou moom wàccoon ak noonu ndax képp koo xam ni mbooloo lu muy yaatu yaatu yaatu ak lu ñu bari bari boo ak taxaw ñu ni kii kan la ñu ni diwa foo mu ne woon ko sëñ il faut ñu jox la benn wàccuwaay bu ñu la joxul woon mhm. buñ képp képp kenn ko fa mhm. loolu nag ab sag la ci ci nun mhm. boobu nag kenn waru koo doyadal kenn waru koo yàq itam tey itam ñu wàññi wax ji ndax boo dégloo wax nit ñi day daanu ko di day mel ni suñu Saliou mu amul woon jotul sax liggéey wax dong la nekk woon ci nit ak ak nit ñi ku ne sëñ Saliou nee na ma sëñ wax na ma naan sëñ Saliou déedéet sëñ moom ku ne xam ne ay ndéey ku ne xam na ko ku xam la xam nga ko moo amul jot nekk di waxtaan ak naan diw lii lii ànd ci ku baax ki yendu fa mu defal leen teraanga tubaab bi tam bi mu ñëwee mi ngi natt sëriñ bi ci xam-xam relation internationale la koy nat tax boobu xam na ne kii kilifa lislaam la xam na ne lislaam yëngatu na ci àdduna bi ci gox goxaat yi mu koy nat fu sëriñ bi toll ci wàllu xam-xam ci wet googu man maay firi tubaab bi wax sëriñ bi du ton waaye ñoom ñaar jëflante nañu jëflante boo xam ne tubaab bi xeeb na boppam ci li mu xam dang bi dégg bu baax ba nga xam ne bi mu fa jógee ba tey itteem mooy at mu ne saa yu mënee ñëw Afrique ñëw senegal ba bi sëñ bi di wàcc liggéey mu siyaare si ko wala mu yóbbante ma ci moom. lu waay bëgg suñ tubaab la ko mën a jox te ko fekke lool ci jooju wax nee na moom de jaamu jaamu jaamu maanaam xeetu jaamu yàlla yi. li maanaam nit ñi def jaam xeetu jaamu yàlla ni muy bari bari bari bari bari nee na moom de xam na ni xamul ni maanaam xamul lépp xëy na waaye li ci ëpp njëriñ xam na ko. waaye neen liggéey Sëñ Tuubaa ci doole. ay laayente biir it daanaka wax lu bëree bëri ci daara gi ne ah ab murid li ko war rek mooy toppee daan ne sax la ko ngay toppale moom bu la jiitu woon ci dëkk ba mu jëmit bu wëññi koo ginnaaw xam na ne yaa ngi woon ci ginnaawam da ngeen daje mu mën laa jël. ñàkk toppe na li muy tegtale mooy koo xam ne kon toppe woo ki ki la jiitu bu dikkee ba fi ngeen tàggoo woon nga jëm penk mu jëm sow du gis kon ab murit la ko war mooy topp ab sëriñam bokk na ci yéen daan wax it li war sëñ bi moo war taalibe bi te mooy ànd di jaamu yàlla seytaane nag ci diggante bi nag naan la yow am murit dong nga waroo jàng am dong nga waroo waroo xam dara am dong nga waroo jaamu yàlla la pexum seytaane la yaakaar naa sax ak maa ko doon dégg ci yeneen kaset waaye fekk na ñun ñu déggoon ko ca daara ya mu daan ñu ko wax lu baree baree bari. sëñ Fall ñoo foo jógee ñu mën ko daal sëñ Fall da laa jógee noonu nga mën bi su ma ko mënoon di sëñ Touba ak su ma ko ci defal Saliou moom du ma ko defal kenn. ndax li ñu amoon sëñ Saliou kon mënatuñ ko am ci kenn kenn kenn benn doomu aadama. lu ñu rawoon sëñ Saliou rek mënatuñ koo dem fenn mënatul am mënatul am fenn nag lu ñu rawoon sëñ Saliou mënatoo ko am fenn te léegi la sëñ Saliou def ni ku mu doyul it ba ngay sàkku leen mënu ko am ni sëñ Saliou jógewu fi sëñ Cheikh a ngi fi te kenn xibatu ko ci dara ñëpp xam nañ ne ci yoon la tege muy doomi sëñ Saliou yëpp mm-hmm. kenn kuñ ci man di lim fii di lim fi amut mm-hmm. tiiguñ ci kenn fenn la leen seen bàyyi bàyyee doy na sëkk. sëriñ bi ndongo yi rek mooy yitteem ñu leen ñuy ut lu neex ndongo yi waaw léegi da nga ciy ñoo xam ne rek démb rek maa ngi dajeeg koo xam ne ndeysaan dafa ñëw seet si ma dama gis ne fi li ko sëriñ bi tegoon ci la nekk ndax dafa bindal sëriñ bi kaamil alxuraan jox ko ko sëñ bi ne ko liggéey bi ma am di bii moom ci gën a neex kooku daara la yore tey yore lu ma téeméer xale di leen jàngal alxuraan mi ngi tubaaboo.